représentation du chef de village dafa am solo te da na néw lu état di jël ci chef de village yi di len yóbbu ci institution yi kon tay bu ko défé chef de village yi am nañ ben responsabilité bo xam ci ni mom engagé na le. ndax am na ci institution sénégalais yi bo xam ci ni chef de village yi nekk Touba am nañ kilifa bu len fa représenter muy le chef de village de Touba Mosquée ñi ngi ñaan suñu borom tabaaraka taala may ko wér awum xel goo xam ni dana mën a teewal dëkk bi sell bi ci poste institution boobu ba ëllëg mu gën a yéeg ci yeneen institution yu gën a kawe yooyu li nga xam ne nag moo ñu fi dajale muy parrainage bi lancé nañ ko semaine passée bëri na politiciens yu jóg engagé ci xam naa ni casquette politique bi dama koy summi te ko fee jël jël parolu chef de bi di waxe ko li nga xam ne mooy parrainage bi yaakaar naa ni chef de village yi bari na ci yoo xam ci ni ay acteurs politiques lañ bari na ci ñoo xam ci doonuñu ko waaye ñàkk a doon acteur politique terewul nga mën a parrainer ndax ku xam ne chef de village nga wala ak chef de quartier nekk ca boo ba nga nekk bu yàlla dogalee nga déggoog saw askan bu buñ la parrainé noo 100 ou 200 personnes wala 300 jàpp naa ni mutulam xëy baam ngont bu fekkee ni na nga xam ne war nga koo taxaw askan wi taxawal kon yaakaar naa ne li sëñ bi di santaane lu manu la la ca ko mooy ni mu ko waxee ci discours bi pare parrainage bi dafa am ay responsabilité yo fini day engager ki nga xam moy mooy responsable bii parrainé té foog naa ni moom mooy doon responsable bi dafa am ay pénalité yu ci mën am kon nañu xam ni ñu koy défé nañu xam ni ñu koy bindé comme ni mu ko waxé bu yalla dogalé mu am délégation buy dem ci cette déplacé nañu xol ñoo xam paré wu ñun ben liste ñu parrainé liste bi nga xam mom la indi mais képp ko xam mas nga parrainé benn ben liste soko ko ci biir man nga yobé ka nga xam mom ngay parrainel jafé jafé yo xam ci ni xeyna du ko jar